rien n'est normal si tout était normal même moi je n'allais pas être ici devant vous devant des caméras du donc je sais ne nous sommes la Sénégal c'est ben genre en fait on est dans un impasse Pour nous Pour on va droit au mur Nous nous réfléchir surtout et gis nga même bu un compte Facebook tu es anonyme personne ne te connaît mais le message que tu portes là c'est très important moo tax euh, surtout ça je vais y insister parce que dernièrement gis naa ci réseaux sociaux yi nit ñi nu ñuy attaquer ñeneen ñi alors qu'on est dans le même groupe yow y a toute une armée contre toi tout l'État mu ngi fii di la xeex di la nit ñi di jël appareil état bi di la ko xeex ba pare yow aussi ngay xeex say nit juste parce que yow li nga bëgg amul loolu kan moo ko tere am c'est Macky Sall et ses personnes donc il faut pas se tromper d'objectif l'objectif c'est se battre pour que lu fi nekk jóge fi pour que sénégalais yi mun a dundaat lu ñu nekkoon

ana ñi nga xamante ne Sénégal ñor na leen ana ñi nga xamante ne euh, Sénégal defal na leen lu ne ana ñi sagoo Sénégal ana ñi nga xamante ne euh, Sénégal jox na leen fii jox leen ci biti taxawal leen fii taxawal leen ci biti ana doomu Sénégal yi nga xamante ne ci juddu Sénégal moo tax ñi leen di sukkal di leen raamal di leen sargal euh, ci bépp fànn nag ci domaine yépp moo xam ci diine moo xam ci sport moo xam ci culture moo xam ci lépp ani ngeen ana ñi yërëm Sénégal li laay war a sóol yi foofu la ñu toll parce que foofu ñu toll mooy ñi nga xam ne ñëpp Sénégal ñor na leen ñoom ñoo war a taxaw yëy yàbbi ndaxte lii ñu nekk di gis nii weesu na sabotage capitaine wax na leen ko bu lépp jaaroon yoon du fii lay toog ndax dafa am liggéey sol tenue di liggéeyal Sénégal mais mbir yi jaarul yoon ba tax mu simbi tenue boobu nga xam ne mooy fierteem mais nak tenu bobu ci touru Sénégal lako solé won kon Sénégal mo nek ci kawam ñun ñu ñëpp Sénégal mo nek suñu kaw waye amna ko xamantene ne mu ngi fawé Sénégal waa président mak Sall mu ngi fawé Sénégal mu ngi saboté mu ngi def lu ko neex mu ngi jël li nga xamni motax mom mu nek son excellence le président de la république tëj ay nit ci article 80 ak ci lenen ak lenen di ko fawé ndax tay buñu démé ba jëm ci élection présidentielle war a tànn ñi ëpp dayoo ñi ëpp légitimité ñi sénégalais yi bëgg ñi sénégale yi xàmme nga jël sa conseil constitutionnel jël na administration mel ni ku yor tame yu réet boo fàttee ñetti baaraam tame yu réet bu ñu fàttee ñetti baaraam benn baaraam bi Ousmane Sonko bu mu jàll moom nga fatt ci tamit bi ba ca des képp ku ko xam ku ko bëgg ku ko jege ku ànd ak moom ku safoog moom bu mu jàll ba ca des nag sa yaama neex loolu moom mooy pour layal ko ndax am na candidat yoo xam ne pour layal la am na ñoo xam ne sax jéem nañ leen téye téyelu pour ñu bokk ci coow ñu ñu téye bu ko defee ku wax ñu wax ku wax ne dañ maa téye ñu ne ak manit yokk ci débat bi di wax rek jël dëkk bi def ko man la neex maa tey man la neex man maa tey ci loolu lañ nekk ndax gis ngeen tamit yuréet bi tey keroog dañ cee fattoon ab morso xaw a am ñun téye te ñu ne yuréet injustice sous loolu jigéen ak jigéen ak ah, kay ñun ñëpp on est des femmes ak ñoo féministes mais toutes les femmes ne se valent pas déedéet jigéenu jàmbaar yi xàmmee nañ leen jigéen ñi di xeex xàmmee nañ leen jigéen ñi am légitimité xàmmee nañ leen jigéen ñi nga xamantene bo boobu ba léegi ñu ngi naan nii di ñàkk di sànni xàmmee nañ leen jigéen ñi nga xamantene ne bu ñu taxawee sénégalais xàmmee leen ak ah, kay kii mës xeyal, maa xëyal mës na gontul mës na ci tromba bi mës na combat bi xàmmee nañ leen lii élection présidentielle la du fo le président Macky Sall se joue de nous il se joue du Sénégal Anna, d'homme du Sénégal yi le Sénégal dit ngeen di Fipou », ngeen di taxaw ngeen di ni la barrière a am Sénégalais am nañ lool lool lool ñu ci sélection boobu kon ñu ciy def lu leen neex man de maa ngi xaar ba kenn ne ma Bassirou fay Faye amul parrainage ndax maa ko signé maa ko bind maa ko recopié waaye foo ngeen ni mbir mi Bassirou Diomaye la wala wala ñiy toog ci table bii la déedéet mbir mi sax da ngeen foog ni Ousmane Sonko la ñun ki ñu àndal dal na xel de parce que li tax mu dal xel mooy président Ousmane Sonko lépp lu ko war ci yoon def na ko wàccoo na ak yoon dossier am dafa complet parce que li ci manqué du coobereem incomp li ko li ko li ko tere manqué ñoom ñoo ko ci deful waaye tey conseil constitutionnel sëgg na nee na CDC moo nekk ci kawam ñun ñëpp dañu ñëwoon conseil constitutionnel c'est le dernier rempart mais conseil constitutionnel tey nangu na wax ne Il y a des dossiers yoo xam ne du moom moo koy jugé am na beneen organisation bu tudd CDC boo xam ne organisation boobu moom mën na téye ay candidats donc moom ci pouvoir am yëpp na ci waa CDC loo xamante ne sénégalais nangul nañ ko ko waaye mbokk yi ñun de Sénégal li ñu tënk. ndax mais dinaa fexe ba teg sama ay nit organiser sama benn simulacre boo xamante ne moo raw sax Marodi jëkk samay théâtre di xool sama ay épisode kuy jiitu kan laay defee nii nan laa koy defee ne teg ba nga xamante ne bu ma organiser élection samay kandidaa ñooy jàll samay candidat ñoom ñooy jàll ñu def ci sélection ci loolu bu ko defee ma confisquer pouvoir bi loolu nag mbokk yi su amee kenn du kenn lañ koy wax ku dul sénégalais yi ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que nag sénégalais yii te ñu bokk ko ñun ñi ñëpp ñoo bokk suñu réew lii nekk di am ñun war nañ leen lu ñu mënoon def nañ ko yóbbu nañ suñu candidature yóbbu nañ suñu dossier dem nañ justice jaabante nañu baagante nañ tey jox nañu décision lu weesu loolu tey ñu ngi jëm ci li nga xamante ne ñëpp teg nañ ci seen bët xam nañ ni njuuj njaaj weesuwul lii te nag damay ne jikkoy boroom pax jikkoy borom pax bu ko bàyyee daa faatu fii mag mu toog ne bàyyi naa njuuj njaaj moom rek a xam ndax foog naa ni kenn du def dara mu jik la nga xëy suba di ko bàyyi njuuj daaj ba nekkoon ca lañ ne ba tey rek dara weesu dara beesu fi dara beesu fi léegi nag ñun ñoo ci des est-ce que suñu responsabilité ñu ko capitaine Touré waxee ñenn ñi fi jaar ni bokk ko est-ce que dañuy continuer ñun toog jël suñu réew mii bàyyi ñu koy def ci puluf puluf jiixi jaaxaa jëf ana ko ëpp sens ana kan moo ci euh, dal ana kan mooy ñëw dernière minute ñu ne yow la est-ce que ñun ci pan bobu la ñu toll wala ci pan wu tànn deug deug suñu njiitum rew deug deug suñu avenir lolu mom moy question bi question bobu nak ñun invité nañ ne ci luñ mën def nañ ko ñun tégal nañ leen suñu candidature mais ñu ngi leen di wax ne leen filtre bi di sélectionner mo xam fi la tame yuréet bii bu tame yuréet bii passé amna benen beneen grillage bu ci kanam